asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk téléspectateur Equivox yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag fi ma toog nii moom xam naa ne ci biir jaaykat yi laa nekk dafa mel ni Petersen laa toog nii ah Gomis tey nag daa ku ñu seet si parce que coronavirus bi bi mu ñëwee daaw ba tey daaw ba ren di moins parce que am na at mois de mars la ñëwoon bi mu ñëwee ba tey bëreetuñu ñu xool mbër ba xam ñoom ndax ñu ngi liggéey wala liggéeyuñu am na mbër moo xam ne nag tey moom lamb ji da koo boole kii bi ba lamb ji doxul mu ne ci business am bi ñëwee nag fi ñu ko fekk defe naa ay nitam lañu fekk ñu wër ko nii sama gars yi tur bi nan la yow lay ziar. copain maa ngi lay bëgg. waaw ah, man maa lay maa ngi lay delloo ziar man la Alphonse mu mbay guy gi waaw. waaw. daa mel ni seen mbër ngi liggéey. waaw ah, si mbër mi ngi liggéey de gis nga ñu ngi ci de ñu ngi ci état. waaw si marché bi. di Dóor waar di Dóor waar kay. am na solo copain maa ngi lay bëgg tur bi. Eh man la Mouhamed Ndoye waaw. mbay gu gi mi nekkal ci marché bi ci moom chaque jour mu ngi ci marché bi. chaque jour mu ngi yàkkamte neen làmb yu tijji mu defal waa ji bagage waaw kese waaw. copain bëgg naa la. ci loolu yaa ngi jàmm lambay ah, Lambaye bu mbay guy gi waaw ñëpp ay waayam day xëy di liggéey suba ngoon di ko téye bu baax lam ji bu amul day xëy si di liggéey mbër mu am jom la te comme tey ci lam ji dana defal bagaas am na solo. jaafaay Abdou Salam lañ koy wax waaw Baye Fallou Mbaye guy bi waaw ñu ngi noonu waaw tarki ndayaay ni toog ñoom ñëpp Mbaye guy gi champion la liggéey kan la bu bu làmb amee mu ngi ci làmb ji bu làmb ji jeexee mu si ci job di liggéey di dóor waar dóor katu waar la ah, xale bu xool si moom nag foo jaar da am job nangoo liggéey si koom lañ topp nag ñu ngi koy ñaanal yàlla lu mu dugg rek yàlla dox si yàlla may ndam ci barke Serigne Touba jaajëf zos wala du zos sos la waaw ah, dafa leer sos bu mbay guy gi bu mbay guy gi waaw ah, loolu leer nañi ah mbay guy gi fi ne nag doom nay ah làmbu xale koy def soo bëggee dégg-dégg rek làmbu xale koy def te booy baa ngi liggéey muy góorgóorlu bu wér a wér teel a bu pare ñëw ci marché bi job waaw waaw waaw noonu la moom borom baax la nit ñëpp la moom borom baax la waaw waa léegi kon ñu dem ci mbay waaye man li ma jaaxal fii xanaa coronavirus moom dañ ko fee waxut gars yi kenn takkul masque ah. coronavirus bi solo lañu trop. takk ay masque nag. ñun ñun kenn du takk nag saa yi ñun dañoo sonn si takk masque yi dañoo sonn si mesure barrière yi comme lañ koy wax waaw. waaw mafia bi kenn sonn ma masque. ñun mënuñu takk masque. épisme suñu bi dañ koo jaar dañ koo sonal fan yi Sonko nañ ko bàyyi nañ ko libéré. ah yow loolu beneen mbir la yow loolu beneen mbir la baay bàyyi ma ñëw ci mbay guy gi yow ñu ñu làmb ba pare <laughs> mbay maa ngi lay ziar. Babs maa lay fay di wax ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maay gërëm sama ñaari waajur waaw di wax ginnaaw ma sant yàlla rek julli si yonent bi gërëm sama ñaari waajur di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba di gërëm sama sëriñ sëñ Tafa Diouf borom boox ak Njaañ waaw. mbay defe naa daaw ba mbër mu toog atum ndax feebar bu ñuy wax coronavirus nooy dundee loolu actuellement. waaw Babs euh, feebar bi ñun ñëpp ñoo ci bokk yem gis nañ ñim ñëwee ci ñun ñu ngi wax daal gars yi nañ jël mesure barrière yi takk masque yi xëy na ci kanam tuuti yàggatul koi parce que yàgg na ci février bi defe naa xaw ma la kañ dina am un an waaw mars ah, lay am un an ñu ngi ñaan yàlla balaa mars rek mu jeex ak jàmm ku ne delluwaat sa yitte quoi waaw. mel ni sa combat ak euh, ak Mame Balla bi corona bi ñëw fekk na mu taxaw bawal production Assane Ndiaye taxawaloon ko yaakaar naa foofu la la fekkoon. waaw foofu la ma fekkoon depuis daaw man la sama combat taxaw ah, ma ak Mame Balla waaw mais nag balaa loolu damay nuyu waa Petersen Babs fii fi laay liggéeyee Sandaga Petersen Alkaida fii képp ku naa yokkal ma jaay la man mbay guy gi sañ na ma taxaw ne man maay sa mbër am na yeneen mbër nag yeneen champion mais man maa ci gën ràññeeku noo tax maay gërëm waa Petersen yëpp sama grand yi nekk fii yëpp maa leen di bégee di leen ñaanal jàmm grand yu baax yoo xam ne maa ñoom ñoo nekk fii ñu ci mel ni ñoom Dame Cissé ñoom moor Diouf ñoom Assane ñoom Abdou sek ñoom Omar Sos ak sama boy yi fii ñoom Lambaay ñoom Jaraaf ñoom Sidaan ñoom sama fils Alphonse est-ce ñoom Salaam gaa yëpp moo est-ce que limb ñëpp xam nga li ma la wax waaw gaa yëpp daal liggéey yaam ma gën a xam xam nga rek booy liggéey da ngay nekk ak gaa yi moo tax mooy loolu gis nga marché bi dafa bëri bruit nii lañ fi nekkee quoi mais nag sant yàlla rek yaa ma gën a xam waaw. ma ma man li ma li tey fi may dikk ak yow fenn la quoi maanaam fi may dikk ak yow mooy mbay mbër yi làmb ji taxaw na. yow mu mel ni moom làmb ji taxaw na mais yow yaa ngi ci say activité saa yoo xëyee est ce que mbay day xëy ci marché bi chaque jour di jënd ak jaay. waaw Babs saa bu ma xëyee bés bu yàlla sak bu ma xëyee 5 heures matin damay yeewu dem su ma demee entrement damay ñëw sangu 6 heures su may sangoo 6 heures damay ñëw xëy damay xëy si ba 5 heures ma wàcc dem entraînement loolu laay def amuma man damay liggéey même bu corona amul feebar amul sax damay xëy ci marché bi di jaay waaw bu feebar amul sax damay liggéey parce que liggéey nag avant ñuy dugg ci làmb moom lañ xam quoi waaw làmb danoon dab rek kon daal mbay bokkul ci mbër yi nga xam parce que gis ay mbër souvent wala ñuy dégg mbër yoo xam ne des fois dañuy am problème mu xëy na dem ci wàcc ci marché bi dóor waar ak yu mel neen mbay amul problème boobu kon non amuma problème boobu ci tëli bi laay taxaw léeg-léeg di wanteer samay bagage waaw fii laay taxaw di wanteer lu jokkal ma jaay la loo jël ak njëgam léeg may jaay jar jar mille jël leen loo jël 3000 wanteer comme ni gars wanteere ru ragaluma lool parce que sama liggéey la waaw parce que sàcc ma fennu ma dama taxaw di joob di liggéey waaw kon xam nga am loolu lu ma ciy ruus parce que damay liggéey daal mais daal di wax mbër yi daal mbër yi bépp mbër nga fexe wuti leneen làmb nag moom mënul ñaa mais nañ wuti beneen liggéey boo xam ne bu lamb ñëwee it nga dagg ko dem dem def sa lamb après nga ñëw delluwaat ci liggéey bi parce que làmb rek combat yi sax day sore boo bëree balaa ngaa bëreewaat mën naa am ay 6 mois affaire yooyu day metti il faut nga liggéey quoi te te koy ñaan chaque jour nag bu yàggee yaa ma gën a xam day métti da lay yàpp mooy lool kon yow ñaan d'accord ci. ñaan am na nit ñoo xam ne nag dinañ leen ñaan parce que yàllaa leen dénk teraanga ku ci mel ni Abdou Aziz Alé Ndiaye sama xarit sama doomu nday Al Amin kooku lu ma ko ne lii laa bëgg balaa ngoon a jot mu defal ma ko ak jéey seen promoteur borom authentique jéey bërki dee moo Ndiaye dama invité këram ma dem mu defal may ginaar yu bëreeg yàpp ma lekk ba suur est-ce que dégg nga ma mu yëkkati xaalis boo xam ne du ma ko tudd fii parce que yaa ma gën a xam immobilier Salimto sama papa joo xam ne moo fa ne kooku barki dem bi ma demee bay ñibbi tàggu ko sama per bi ma bi ma ko tàggoo bi ma joxee dama ne ko danga ma am ko ma yóbbante wala lii danga ma ko may mu ne ma dama la ko may bi ma ñëwee ŋaangu ma ko nit parce que ñooñu nag dañ lay gis te yàlla tax ñu bëgg la te yàlla tax jàppale la mais comme man jubal dem ci nit naa may ma lii wala yi xalaatuma ko te duma ko def ba mu may dee ñëw naa la may ma non te yaa ma gën a xam am na ñu mën a ñaan nag mais man moom melu ma noonu ñi may dimbali di ma jàppale dañ maa bëgg te yàlla tax bëgg ma ci ni ma mel moo tax ñu may jàppale. Mhm. mais Aziz sa digganteek moom temps yi gars yi nañ da ngaa gàddu Aziz Ndiaye de. non Aziz Ndiaye kooku ku ne bëgg nga koo gàddu danoo amul ci moom porte rek man nag maa moom suba ak ngoon dañuy déggante muy sama xarit xam nga dem ba Màkka siyaare ji yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, taxaw fa jàkkaarloog kaaba gi ñaanal la est-ce que dégg nga ma ñaanal la lu rëy ñëpp di ko gis àdduna moo am waaye ma ko moo koy estati lool ferte la desee la tuma dara Aziz Ndiaye kooku kenn la ci man sama xarit sama papa Badajon moo ma booleek moom ban xamante ba léegi lépp a rafet dal may jàppale dal may jàppale chaque jour tout le temps dal may jàppale ak jéy seen ñooñu aw seen fay parce que nit moom mënoo am ku dul ñi lay jàppale jeey seen aw ma fayam promoteur la te dal may jàppale man mbër laa nee ma dama laa bëgg te yàlla tax pa làmb jeey seen sama papa bare jon moom waxuma ay waxam Daouda Sarr itam sunu président agri kooku moom da ciy jàpp bu baax da lay woo nga ñëw mu yëkkati xaaj jox la yaa ma gën a xam ak ñi ma nekkat fii ci marché bi aw fekk kenn xaar ma yàlla képp ku ma ci dem ne la lii laa bëgg yaa ma gën a xam papa ndaw pnome borom bopp bi amut karaw mais lu ma ko jox ma dal may jox sama waay la ak Babs VIP moom xam nga yow xam nga Babs moom xam nga waaw ak magam Mor Diouf mooy loolu ñoom Abdou Seck gars yi ñoom ñëpp Amidou gars yëpp ñoom Assane abdu sek gars yëpp daal dañ ciy jàpp mooy loolu. ñoom daal man su ma la déggee daal daa mel ni liggéey a gën a wóor. liggéey moo gën a wóor ku liggéeyul yaa ngi ci erreur parce que làmb rek làmb yaa ma gën a xam tey man maa ngi nii ne ci ay ndam di bëree daan yàlla mën naa ñëw tey jii yàllaa xam luy am yàlla bu mu am nag mën naa ma ñu ñëw ma bëri ñu daan ma ma bëriwaat ñu daan ma bu boobaa doo fooy jëm boo liggéeyul da ngay delluwaat fa ngay liggéey rek dem liggéey dinaa bëre nag bu ma bëree daan ñëwaat liggéey si buñ ma joxaatee combat bu desee deux mois mën na ma toog sama kër entraîné waaj sama combat bu jàllee ma liggéey si waat quoi. mbay guy gi daal mbër mu am xaalis la daa mel ni de. non xaalis moom moom la ñëpp di ñaan yàlla. mais nag am naa ci li ma am mag maa ngi koy sant yàlla parce que maa ngi liggéey di am sama weccet waaw parce que ay nit itam moo gën xaalis te man am naa ay nit ku am Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye ku ko am ñàkkoo dara nga ne jéey seen ne ci wet gi ñooñu ku leen am ñàkkoo dara est-ce que yaa ngi may dégg ak sama père borom immobilier Salim To ko kenn la ci man tamit barki démboo Ndiaye la ma recevoir yëkkati xaalis bu bëri jox ma moom ay immeuble lay defar sama papa jooju kon xam nga ne yaa ma gën a xam. mu mel ni jéeyit na waar de. jéey jéey ginaar ginaar nu mel mbay. jéey ginaar yi man xaw ma ginaar xam nga ginaaru olof moom day saf te man damay lekk ñaari ginaar. ñaari ginaar may reer nii ñaari ginaar yu nu saaf def pomme de terre ak salade dama koy dóor teg ci coca bu mag loolu damay tëdd sama ngor sax mais bu ma ngaj gi ñëwee mën naa laal cere téeméer teg ko ci ci ñaari ginaar yi mooy lool entraînement yi bu ko ma ci nekkee dëgg yaa gën a xam xanaa kon de xanaa la nga lekk kere ci ginaar kër jéey bari na. non li ma lekk kere ci ay ginaar kere kër jéey li ma defal ci ginaar mooy loolu fa laa ko mujj wàcc kere ay trente ginaar la ma rayal dama lekk ba suur wàcc ko fa mooy lool billaay jéey kenn du moom ci man sama nit la sama xarit la moog Aziz Aly Ndiaye ñooñu aw ma seen fay. mais mbay dama seetlu leen ren ñu bëri laaj nañ ko. dañ fee woote mbëri dañ fee woote ay conférence de presse pour wax ci làmb ji ñu ubbi ko gisuñu ca mbëri bawal yi te yow ci mbëri bawal yi nga bokk gisuñu fa tafaatin gisuñu la fa gisuñu fa ñoom wulli ñoom kéwél yéen ñëpp kenn lu waral loolu. dëgg loolu li ko waral Babacar mooy ñun boo wootee cité ay turi mbër woo nga mbër yëpp sax mais ñun tafaatin mooy sunu mag ci moom la ñuy xool bu nee ñu kaay leen def li ñu def ko. bu nee ñu bu leen def lii duñ ko def ñoom la moom lañ doon déglu waxuñu dara duñ dem fenn bu nee ñu ñëw leen ñu ñëw parce bawal moo fa ne moo ne ci kanam moom la fa yàlla teg. bu nee dañ ñoo invité ñëw leen wuyu si ñu dem bu nu waxul lool duñ dem fenn waaw. Tapha Tine yaa ngi koy gis. ah yaa ngi koy gis ah, chaque jour maa moom ñooy entraîné ndoo chaque jour. di préparé Boy Niang. di préparé Boy Niang na ci booy ñaa dara. Tapha booy Niang kay lañ laaj ba xam mën na ci Tapha dara. Boy Niang mënu ci Tapha dara. mënu ci moom len gàllaaj dong la ci yaakaar te loolu moom na dem toog. xam ne Tapha moom doonatul mbër mu kenn di jàpp ci gàllaaj fi mu nii. foo teg loolu. non dañ koo teg fu wóor péng ndamu ñu nag defuñ dara yàlla yor ndam di ko joxe mais booy ñaar moom ci kattanu yàlla ak mbaaxam bu arbitre soufflé Tapha Tine dana ko daan incha allahu rabbi. booy ñaar mën naa bëree man naa xeex de. mën naa bëree mën na xeex champion la def na lépp li mu war a def ba dajeeg Tapha sunu gara mais boo ak Tapha lenn est-ce que nga ma Tapha ëpp doole moo man moom combat bi lim ci yaakaar lépp ñun xam nañ ko te ñu ngi ciy préparé bu baax baax a baax. yaakaaru ci doole. doole bu doon doole rek du jël combat bi ay mbokkam xam nañ lool sax fu wóor laa ko teg boo ñaa bu tafaatin doon nelaw mën nay fëgg bunt bi fi ba suba tafaatu yeewu lu leer laa la wax mooy loolu. billaay lu leer laa lay wax Babs ñun ay bawal bawal lañ ah. ñun ñëwuñu rek ñu xalal ñu ci làmb nii ñuy nii nii nii. booy ñaar koo xalal yow itam. non déglu ma làmb ji moom ku ne xam na fi ay kumbaam ndaya fe mag kumbaamul nday mais tafaatin xam ne fii ko gars yi classé sax duru fi mais làmb ji moom léegi kumbaam ndaya kumbaamul ndaya fi am jaam a gën a xam mais nag ñun ñu ngi sant yàlla. parce que yàlla ànd ak yàlla gën a wóor waaw. yow it nga lekk avance Mame Balla. waaw Mame Balla champion la. doon sunu gànnaaw jëkkuñu ci làmb yàlla def ñu doon ay ndaw di bëre tey ba dab ko mu may ñu chance ñuy bëreek ak moom dañuy ñaan yàlla sunu borom mi yoon ndam rek mu may ñu ndam ci kawam waaw Uh-huh. kese ah loolu laa koy wax ah di ko wax nag mu liggéey lu liggéey doy na ko xeeb dégg naa ko teetaan daa ko ñu invité ko mu naan moom dafa jógaat dafa defaruwaat affaire yooyu dama ko bëgg a xamal ne ko Dakar du saf ñaari yoon mënoo dem ñu daan la ba nga furi nga ñëwaat daan benn booy rek ñëw ne da ngaa bëgg a dellusiwaat ci làmb di damaat dara mënul ne fekk fi xale yu ndaw ku ko ne mën nga maa daan day nax boppam rek bu dee doole na dem toog fuuf bokkuñu man ak moom bokkuñu te bu ma koy daan it doole laa koy jaay daan ko mënu ci dara waaw mënu ci len xale ak mag la. waaye mën naa bëri de. déggoo lan la man teg tànk bi nga jël muy mboot su ma jëmee mboot ma damm ko loos bi laay damm. billaay walaay mboot ay mboot mboot mbër mboot da ngay daane ko amut doole mboot. mboot da ngay de boot boot boot moom la booy yi di fooyee ci man ay mboot bu ma demee ba mu may daan mu may boo bàyyi bëre na tamit. man mën naa mën maam bala bëre. mooy loolu. mën naa koo bëre bi may bëre bërewul. billaay. léegi fi may jeexal ak yow mooy fan yi gis nañ fi benn coow bu fi am ci ay mbër. ñu dem États-Unis maanaam gars yi di ko tudde coowal Las Vegas ci ay mbër yu mag ci Sénégal xam nga leen waaw loolu noo ko gisee. waaw di ay guy gi sunu grand ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu it liiru jaan sunu grand la ay ñoom mobile ama ne ñoo ña fa ne ñëpp ay mbër lañ sunuy grand lañ ñuy xool ci ñoom mais liy wax ji nañ nañ xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk Sénégal fii dara jaru fi ñaawo parce que alalu àdduna it jarul lenn li nañ rafetal rek lépp naaj quoi liiru sunu grand la day bégloo gars yi. guy gi sun garant la gis nga fi mu toll si làmb danoo seetaan ci làmb moom itam ba bëgg ko ba tudde ko sun bopp mu doon garant boo xam ne garant bu baax la ñàkk ki ñaan di ma woo di ma conseil chaque jour di yëkkati alalam di ma jàppale ñu mën a wax daal ci diggante bi ndeg ñoom ñoo bokk seen waaye ñun nañ ci wax jàmm rek ñu toog waxtaan seen biir yàlla defal leen jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj quoi mooy loolu looy tàggoo ñu lay suivre ci Equivox TV ak noo gise tamit Equivox. waaw Equivox moom maa leen di gis ñu ngi def ay émission yu yu yu macha allah. gaa yi ngi leen di bàyyi xel te ñu ngi leen di ñaanal ñu dem ba yor ay télé télé télé ci barki alxuraan li may tàggoo mooy gërëm waa Petersen Sandaga Mbay Diop Peter Mbay Diop Petersen buntu ba Mbay aw ma fayam Mor Baye Fall sama doomu ndey borom centenaire aw ma fayam moog magam Njaay Bamba sama waay la sama xarit la. di nuyu sama mag yi ne Colobane sama doom baay ñoom Cheikh mu ndaw Cheikh bu mbay guy gi ak Balla Mbay Ousmane maa ngi koy gërëm di gërëm Cheikh Thiaw sàndaga sama waay la sama xarit la ah di gërëm waa Petersen nii Alkayda gars yi aw ma seen fay parce que fii waaw fii mooy Alkayda samay garant rek a fi ne nga ak samay booy ñoom Cheikh Lambaay mii Lambaay xam nga ko ay ñoom Omar Sos booy yi ñoom Sidaan jaraaf yu sundooy jaraaf mii ku ne xam na ne mooy loolu sama waay la Salaam sama doomu nday ñoom pëno gaa yëpp ak sunu grand ñoom mbay ñi moo ni entraîné géej chaque gara bii ngay gis nii sunu grand la ñoom ñàngal Salman mii champion la mais ba léegi waneegul lu leer waaw champion la ñu ngi koy bégee ñoom Modou faal Malick Mbër sunu grand ñoom am Cheikh Mbaj waaw Babacar bu Modou la ma sama doomu ndey la sama xarit la kooku maa ngi moom ñooy ànd suba ak ngoon di gërëm Modou la ma sama sama grand sama xarit est ce que yaa may dégg ñoom Modou Fall Mor Diouf amuñu fayam daam siise it kenn la ci ñun quoi xam nañ fi ñu toll ñaari saal yit samay doomi nday lañ samay xarit lañ samay booy lañ alkayda daal képp ku fi ne ak Peter Sène di yokkuma jaay la maa ngi lay ñaanal jàmm ak maas centenaire aw ma fayam maas centenaire. mbay am na jabar. waaw déggu ma. am lan mooy mbay am na jabar. am nga soxna. no manu loolu moom fi mu nii bab so mënu ma cee wax dara waaw bu ma amee ak bu ma amut yëpp du ma wax dara. parce que yaa ma gën a xam ku gaa yi ku xam foo jëm doo àgg yi waaw bal ma ba lépp ci suuf waaw yaa ma gën a xam noonu la demee di ñaanal ñëpp jàmm daal di ñaanal waa nan euh, équipe bi Equivox ngeen dem a dem a dem yaa ma gën a xam ba mel ni ba sut ci télé yi ne Sénégal ngeen sut ci loolu maa ngi leen koy ñaanal maa ngi nuyu Modou Baye Fall sama doomu ndey di nuyu Ndama bu mbay guy gi waaw ndaama bu mbay guy gi maa ngi koy béggee di ñaanal ñëpp jàmm waaw di di di baalu ñekk àq nag di baal ñëpp àq di nuyu waa bawal ga ma jógee waaw ñëpp bawal tout maa ngi béggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu fa ma dëkk nag waa Réfan boox di nuyu waa saalum saalum dama fa bëri supporter jib seen it aw ma fayam sama doomu ndey sama xarit waaw noonu la demee waaw maa ngi gërëm cal gi borom géejawaay sama waay la sama xarit la cal kee ngi noonu